Sénégal mbokki amateuru lamb yi gannaaw bu mu wàccee fas njëkk coy ba mu wàcc moom Fallou Ndiaye jiital Ndiaye production waa Sénégal dañoo dajaloo ne ko Fallou Ndiaye faaw nga defal ñu li ni mel faaw nga bégal amateuru lamb yi nekk ci diwaanu Sénégal mu ne aca leen fekk leen ma ci arène nationale le 27 mars bii ñu dëgmal ma ne ko Fallou sa yaram dafa tàng de fii 4 millions laay tegal mbër yi lépp nag ngir bégal amateur yi ma ne ko kan nga tuddee sa lamb mu ne kuy bégal amateur amateur ngay tuddee sa lamb bi jagleel naa ko Doudou président des amateurs de Sénégal Doudou Diagne Diecko ne bi ko jël delloo ko samay xarit samay am di jàmm ku ci mel ni Moustapha Diop ministre de l'énergie maire de Louga Matar Ba ministre des maire de Fatick Amadou Ba ex ministre des affaires étrangères responsable politique APR ci Dakar Cheikh Tidiane Ba Messi responsable politique à Médina Moustapha Mbeng maire de Kër Massar Aliou maire de la ville de Guédiawaye Pape Diogoy Faye directeur Direct News Amadou Diagne nekk responsable politique ci Pikine ancien ministre des organisatrice su lit simple Awa Diouf di trésorière fàllu ne am na ay invité d'honneur ku ci mel ni Ahmed Youssouf Bengalum borom Kaolack Nouvelle Vision ku ci mel ni Michael Fora borom Jàmmagën Sicap Mbao Fora Pape Abdou Fall président des promoteurs de lutte avec frappe ak ku ci mel ni Gora président des jeunes amateurs de lutte yéen sponsor nga àndal Ndiaye production mu ne ñi nga xam ne foo leen gisee gis ma fa sama bés boo ñëw fekk leen fa muy waa Best communication courtage ñoo ci teg loxo ànd ceeg VIP fast food see ci wàllu réparation auto ak marque bu mën di ma ne mbokki amateur yi mbokki mbër yi bés baa ngoog le 27 mars ci arène nationale ñu ànd ceeg Fallou Ndiaye jiital Ndiaye production mise ba di 4 millions francs CFA dio soog ba fas yéene nekk ci diggante Mbaye ak Loum ak Momo Ngom ma ne arène nationale le 27 mars njar ndéem lay nekk mbër bu fa ñëw sa xol dana sedd amateur bu ñëw sa xol dana sedd ndax li ni mel Ndiaye rekk ku mën